kaayam yàqamti wàcc noo mënti mel moo ànd ak yow soo ëmboon ba sa biir toll ni Sénégal bu ñëwee si si si lay wéeru ngeen di toog di waxtaan muy àndandoo yow ci mbedd mi di doxantoo ak yow xam nga boo feebaree mu feebar soo soo soo meree mu mer soo xiifee mu xiif ba pare senegal ngay takk takk mbokk yëpp dangay takk ñëpp takk nijaay yi takk yaay ji takk bàjjen yi takk ñëpp parce que ñëpp ñoo bokk ci sëy bi sëy bi bu amee problème ni nga koy réglé ak sa njaboot noonu la ñëpp di ñëwee ñu toog ñu koy réglé. Mhm. moo waral te actuellement Sénégal sëy yi metti mhm. mais pour ma kooku conclure ngir yàlla ku fi nekk di bëggante ak doomu aadama. Mhm. ngeen war a sëy fexe leen ba seen bëggeel sincère. su bëggeel bi sincère entre yéen ñaar. ñaar ñi ko bokk. man ak yow Bilia man nopp la nga nopp ma. surtout Bilia bu ma la gisul damay am problème Bilia xool nopp ni mu neexee. surtout nga bëgg ma bëgg yu metti non nopp lu éphémère la. déedéet mais nopp mooy alimenté mbëggeel. fan fan nopp ci mbëggeel la ne. ci xeetu mbëggeel la ne. xam nga saf dafa am mais saf boo gis. Hmm? Hmm? nga ni. Ali hmm? ah. saf dafa am. Ah. mais saf bu neex bi dëgg mooy sàpp. saf eh. munul dem bàyyi sàpp. sàpp munul dem bàyyi ah, saf. parce que ñoom ñaar a ànd saf sàpp. sàpp ba nag moom moo ci gën. sàpp ba nag mooy yéen ñaar ngeen bëggante. waaw. comme ni ko góor ga waxoon rek mu ne ko damay dox ci mbedd mi dajeeg yow sa taar yéem ma lool ba ma eh, jaxasoo. en exclusivité nag laa koy am en exclusivité nag hmm? hmm? loo am ma ah, xamante ni yow bu ma dajeel yaay sama chance yow mii boo ma rawee kat jigéen dootuma maas fi ma toog ma mel ni ku tebbi aas góor da ngay tebbi aas jigéen nit day teggi day tebbi aas ah. mais boot bu dee da nga tebbi ay huit wala nga tebbi ay sept wala nga tebbi ay ay ay daam hmm. wala nga tebbi ay roi toujours sëy ba moom du yàgg ñaari at ñetti at benn doom juddu après fu ngeen mujj. léegi mën naa yeggale ñett yi may wax. may ma ñett yooyu dama ne tey ñett yi la. respect 28 minutes. Hmm? confiance hmm? amul soog a ñëw baa xam ne ni bëgg a mujj bëgg moo mujj si sëy ñett yi bu jiituwul fondement bi baaxul kër ni nga koy defee fondement ko ba mu baax. mu ne lan moo mujj. bëgg amour. moo bëgg lan moo njëg respect nit boo ah. ko respecté doo ko saaga. Ah. doo ko wax lu ñaaw. Ah. confiance boo ko amee ci nit yu bëri doo ci dugg mm. bëgg soog a ñëw mënoo bëgg nit ki te amoo ci moom amoo amoo confiance ci moom respecté woo ko góor ñi nag ñoo manqué respect ak confiance léegi boo bëggee indi boo bëggee indi amour kase day fekk loo xamante ni du am doole mooy kër yi ngay jékki-jékki gis kër yi nga gis leen mu rafet rek ñu dem quelques années rek nga gis kër ya ba daanu ñu ne fondement ba dëgërul woon mooy sëy yu bëri ba dara kii day liir ay ro ay roman yooyu noonu di wax ci ay. Camara Mbaye waaw loolu am na ci solo gis ngeen. Camara Mbaye merci xoolal publication bi gars yi def ma war leen solution yéen ñi nga xam ne da ngeen a da ngeen a infidèle. enregistrer le numéro de ta maîtresse avec le no de ta femme elle ne lira jamais ses propres messages solution la de. lan le numéro de ta maîtresse avec le nom de ta femme. waaw du mës a lire message bi ndax day jàpp ne numéro la rek. waaw maanaam booy enregistré booy enregistré sa numéro. ki ngay sa maanaam coro bi ngay génnal. xam nga coro ne ca comme ñoom. beneen exclusivité bi ñu ngi dégg. waaw maanaam nga nag na ngay génn jigéen. waaw nee bu da nga bëgg bind numéro. beneen baa ngi ci kër ga waaw mu ngoog. exclusivité baa ngoog. du ma sa sip sone ni yow moom ngay moom ngay war nii. Bintalaay Bintalaay Gueye fa mu toog lay toog moom itam di di di di di di ci émission bi bala maa jàll ci dernier point bi ma won leen exclusivité bi ah Euh, <clears throat> alaaji Pape Alé Niang ma ci RTS moo dalal Wally Ballago Seck ah muy nii ah, info la ah c'est une très bonne général RTS dalal Wally Seck c'est une très y a quelque chose qui se prépare waaw c'est nar a xew waaw faramaareen bi dafa dafa téye réew mi li moom c'est c'est une image bu rafet la waaw image nice na trop ñu toogee nii Pape Alé Niang moom wax dëgg yàlla ah ñu ngi koy ñaanal rek. yàlla may ko Pape Alé maa ngi lay woo de. ñu koy ñaanal Pape war na maa mën a jël. Ah, ñu koy ñaanal parce que lii moom c'est c'est. war nañ faa mën a am plateau people. waaw moom mooy Sénégal. Mhm. waaw ku dalal Wally rek dalal nga Sénégal. waaw dalal na Sidi Diop dalal nga artistes yëpp. Mhm. nee mu toogee Viviane a ngi noonu toog. waaw ngi fa toog ñëpp a ngi toog. Eh. Wally Seck daal dañ koy ñaanal yàlla. fàtte naa Youssou Ndour. yàlla barki dem dalal na tamit waa Subatel. moom Pape Alé Niang ñoom Matar ñoom ñëpp demoon fa ba ngay pa ba ngay liggéey de pa ba ngay liggéey léegi nag nañ jàll ci suñu dernier point mm-hmm. bi bu Sen ndax li ñu deseet ci ay euh, simili lu néew la ah. dañuy jàll ci Wally Ballago Seck ci boppam mm-hmm. ñu seetaan benn vidéo boo xam ne mm-hmm. wala ñaari vidéo yoo xam ne ay vidéo preuve la lii nag Pape Ousmane daan na ko fi alerté lu bari lii Pape Ousmane daan na ko fi alerte lu bari nag gars yi jàpp ne bon Pape Ousmane dafa bëri wax mais c'est c'est c'est vrai que lu fréquent la ci euh, ay seenu Wally ko Seck lu fréquent la nañu xool mhm. vidéo bi ñu dellusiwaat li nag lu fréquent la am na beneen boo xam ne waa mu ngi alerte mu ngi collecté lépp lu mu sa xew ci seen wàll ci mel nii am na boo xam ne nag man maa taxaw di xool Gàmbi bii paase rek la man ci suufu seen bi waa ji nan la def ba ni bët yéeg nar tëb ci kaw waale waale na këlbët xaw ko moytu waa ji eh, jàll ñu newaat ko këlbët wàccewaat ko vidéo baa ngi nii nañ ko xoolee message bii nii maa ngi koy adressé direct Ndiaga Euro di ko adressé direct Ndiogou mbay mi nga xam ni mooy bras droit Wally mais di ko adressé mbooleem koo xam ni danga bokk ci staff Wally Ballago Seck gis nga lii di raam ci ñag bi la jëm te bu fa amee kër wallahi azim du baax image bi ngeen di gis dafa bëri lu muy arriver arrivé Wally muy tout le temps bu demee concert di da ngeen di gis ay nit di tëb ci kaw chaîne bi di réussir seen coup di dem di ko tatafu te moment boobu bu fekkee nit ki dafa jël intention pour def waali loo xam ni lu bon la mën na ko réussir te lenn sababu ko lu dul manque de sécurité dafa jot sëkk na ngeen jël seen responsabilité ngeen renforcer sécurité waal yi parce que lii ma gis ñun ñëpp ko gisandoo Sénégal li muy arrivé waali bari na te tey bu fekkee nit ki dafa jël intention def ko lu ñaaw balaa sécurité bi di xalaat moom fekk na réussir ne li mu bëgg def waali te tout le temps dañuy gis image bi saa amee moom en personne Wally mooy jël responsabilité am protéger boppam où est la sécurité lan mooy seen njëriñ mais seen njëriñ liggéey la mooy liggéey bi mooy concentré wu ci Wally bàyyi ko xel protéger ko digganteem ak nit ñi mais bu fekkee moom mi ngeen war a protéger talu leen ko ba nit ñi di leen bët di yéeg tout le temps nit ñi di ko gis dañ koy wax dafa jot sëkk nag Wally jël ay responsabilité defar sécurité am organiser ko wut ñoo xam ni dañuy veiller ci moom bu baax a baax a baax a baax parce que Wally nit la boo xam ne dañ ko war a protéger parce que kenn nit ku taxaw di taxaw ci centaine de personnes di leen bégal sa sécurité lenn lañ warul def lu dul taxaw concentré wu ci yow ak sa digganteeg nit ñi mais tout le temps laisser aller bi ci kaw chaîne bi dafa bari te munu ñooy wax ni saa buñ koy def du fekk sécurité am fa am na fa kon fan la ñuy jaar ñoom ba romb sécurité bi ak sécurité bi ci lan la ñu nekk ba ñoo ñooñu mën leen romb tout le temps di ci kaw Wally di ko tatafu ak di ko dem di ko def loo xamante ni tey bu doon lu bon la heure bi réussir nañ ko kon il est yow nag artiste nga yàgg nga alerte ci mel ni te lii nag c'est très dangereux comme ni nga ko waxee te dafa fréquent nag ci ay seenu waale man nag gis ma ko ci yeneen euh, ku ci mel ni Youssou Ndour seenam yu mel nii mënoo ko cee am moom nag gars yi nee nañ ku rafet xol du rejeter nit moo tax souvent yenn yi mu bëgguñ di ci kii mais nag yoon la parce que waali nekkatul waali kase kase kase mais waali ñëpp la te am na ñoo xam ne am nañu ay intention pour def ko lu bon te mën nañ ko jaar ci lii. dafa nekk loo xamante ni ñii koy wax ni yëpp am mbëggeel la ñu am ci moom. waaw ak ñeewantal. parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or. ñii di tëb tey di dal ci kawam ñu bëri am na ñoo xamante ni bu ñu gisee Bilia bëgg ko. li ñuy njëkk def mooy di yuuxu yuuxu dootuñu maîtriser seen bopp di yuuxu di daanu di def ay affaire am na ñoo xamante ni bu ñu la gisee bëgg la mën nañ la nuyu wax la seen sentiment correctment et gentiment dem seen yoon mais dafa am ñoo xamante ni Sénégal fii euh, bu ñu la bëggee dëgg-dëgg ñu janoog yow dañ lay dóor di la rëkk boo nekkee si ay mbooloo ngay ngay fubal wala ngay way def benn affaire nii ñu kontaan ci yow di dañ lay nuyu ñii di la rëkk. ñii di la kott dootuñu la bàyyi ñii kole sa kaw te dafa am loo xamante ni ki la bañ mën na la ko def te doo am trace. Mm-hmm. te waali seenam dafa bëri loolu ñu koy bët di dugg ba ak si moom yàgg naa ko fi wax. nee naa waali seenam dafa tilim depuis Feeling Dakar. laa ko daan wax naa ko seenam sir seenam dafa salte dafa tilim amul organisation. ak bëgg gi ma ko bëgg ak bëgg gi ko Sénégal yi bëgg yëpp musique bu neex lay tëgg ay musicien musique bu neex lañuy tëgg mais ñiy yore sécurité waali des fois dañuy nelaw te soirée bu waali def nga gis loolu day faral di am xale bu jigéen boo xamante ni day bëttee fële rek yéeg ñëw téye ko dootul mën a way da koy bëgg daaneel sax day mujj di wëndeeloog moom Amady Badiane ngay gis des fois mu ñëw di leen teqale ana ñi yore sécurité bi lan lañ doon def lan moo tax lii am tey kon ñooñu yori sécurité waali tey war nañu mën a gën a vigilant parce que waali nekkatul ku ndaw Wally nit la boo xamante ni àdduna bi yëpp ko bëgg te euh, saay-saay waxul dëgg bi waaye day yàq xel. Hmm. nit mën naa jóge fële ñaanuma ko yàlla waxuma ko nit mën naa jóge fële am lu bon lu mu yore dóor ko ko ñëw ñëw dóor ko ko bu booboo ñun lan la ñu mën suñu star ki ñu bëgg tey fekk nañ ko si kaw seen nag ñu def ko loolu loolu Sénégalais yi dina nekk gàcce gu rëy si ñun mieux vaut prévenir nag que guérir ñii kay songu intention boobu taxu leen jóg. dañ koy song parce que dañ kaa bëgg bëgg moo tax na ñuy def nii mais nit bu la bëggee it mënul maîtriser bëggeelam ñii nga xamante ne ñooy sa sécurité ñiy béyee sa sécurité nañu gëna di vigilant ci mbir ñi ba pare Youssou Ndour yi nga koy gis muy tëgg nii yëpp seen yi waali di def nii léegi moom moo ko fi njëkk a def couloir mhm. teg fii seen bi musicien yi nekk nii nga jël couloir teg ne côté gauche am lii côté droite am lii mhm. Youssou Ndour moo ko fi njëkk a def mhm. musoo gis Youssou Ndour soiréem day ñëw ba jege public bi musoo gis nit yéeg parce que am na ay ñoo xamante ni c'est des professionnels en sécurité xam nañ nan la ñuy gérer sécurité ñoom li soirée bi di neex yépp du ñu xool waali du ñu xool xaalis ba ñuy baatare du ñu xool xale yu rafet yi fa ne du ñu xool nit ñi la ñuy fecc ñoom xam na lu ñuy xool sécurité waali ak sécurité ñi ne ci kaw seen bi du waali rek musicien ramdaan yépp seen sécurité dafa am ñu ko war a yore kon nag tey bu ñu ñëwee ba ci soirée yu mel nii programme yu mel nii ñu gis fa ay dérive yu mel nii day nekk loo xamante ni yaa de quoi nag ñu alerter saa waaye dafa woo Ndiaga mais man damay woo Amady Badiane woo mbay si Ndiaye woo Waly Seck woo ñoom ñëpp woo sax faramaareen yi groupe faramaareen yi na ñëpp taxaw di def ay vidéo wax ñii nga xamante ni ñoo gérer sécurité Waly ñu gën koo defar ndax nag mieux vaut prévenir que guérir xoddi ko ca balaa ngay lakkale war ñu laqale nag ba pare di xoddi xoddiku Wally c'est pour le Sénégal comme ni sii Sidi Diop nekkee moom it noonu lañ ko war a wutalee sécurité mais duñ ko gis si ay programme am amu ci boo gisee ñu jël sunu baaraam teg ko ci Wally parce que ci Wally lañ ko gis kii di wax ni dugal vidéo bi Leuz tey ti wax ni kooku dafa wax rek pour jàpp si rek amu ci dara amu ci juróomi dërëm amu ci fukki dërëm mais constat la bu mu def constat boobu nag ngir yàlla ñi nga xamante ni ñoom ñoo gérer staff Wally gérer sécurité Wally nañu veillé bu baax a baax a baax a baax ci sécurité am na waykat bu mag bu doon way nit ñëw di ko may xaalis puso la yor. Hmm. kottu ko jam ko puso bi kottu ko rek jam ko ko nit ñaa ngi bëri woon mu toog ba mu yàgg rek sentir fii di métti kañ kañ ba mu laalee puso la fekk dugg na dañ ko mujj yóbbu xotti ko génne affaire bi kooku est-ce que am na intention nag bu rafet ci moom ñëpp waruñu la laal nit dina jiwee fële saafara bu bon. pour détruire la ñëw fexe ba tàllal loxo pour nga nuyu ko mu nuyu la artiste ak nit ñi di dox duñu benn xam nga danga ne si biir seen yow kaw seen bi di bégal nit bañ nañ ko sax ba dañ ne la booy naan waneel ginnaaw wala nga dem ba ci ginnaaw batteur bi nga toog jonkan foofu nga naan mm-hmm. parce que bët yi lay xool yëpp duñu benn nit nit ñi di daggee billet di dugg jinne yi noonu la ñuy daggee billet di dugg barke Seydina Mohamed yenn saa yi nga dem soirée gis fa jigéen bu rafet ne nga naan que nit bi ñuy dund koy dund ñun duñ leen gis mais ñoom dañuy gis Alioune xam na li may wax. dañuy dugg suñu soirée yi di baal dañuy fecc jinne yi dañuy fecc waali dañuy fecc lépp dañuy fecc musique dañuy consommer li ñuy consommer wu. ñu nag ñoom nag li ñu wutale ñoom dañuy gis mais ñoom duñ leen gis. te nag jinne du jinne yëpp am intention yu baax. yow boo moytu sax est-ce que amoo ay fan si jinne ay jinne yoo xamante ne yow sax ay fan si lañ. munoo ko xam munoo ko xam munoo ko xam nit ku nekk rek ñun ak ñoom yàlla dañoo bind. waaw ñun ak ñoom yàlla dañoo bind wàcce ñu fii ci àdduna te daf ko wax muy dëgg jinne yi ak nit yi dañ fay nekk ñun nag am nañu avantage di leen gis mais ñoom dañuy gis mais artiste un porteur de voix bu toll ni Wally Seck sécurité dañ koo war a dëgëral ba mu dëgër këcc de grâce bu doon dix ngeen di jël jël leen vingt de grâce bu doon gardien yi dañuy nekk di veiller ci leneen di distraire bu ñu distraire ci nañu concentré wu ci nit ñi parce que seytaane mën naa jóge fu ne def lu ne dañuy alerter nag waali mi ngi si sécurité ñii koy daw di ko song yëpp gisuñu ni dañ ko bañ ay nit yu ko am cofeel la ci ñoom mais dañuy prévenir parce que du ñii lay song ñëpp la bëgg. pour gars yi gën ci am xel. Belia. waaw. Ah. Paa Ousmane li nga ma wax de na dama am ay fan si jinne. Ah. yëgu ma ko woon kon am naa ay fan sa sax bay am fan sa jinne. waa Alioune Badara di appuyé wu nag. jaajëf ah, mii. waaw ah, waa yàlla baax na. néew ma yaa ngi nii toog. kan. loolu da laa wax. yeggaleel maa ngi dagg ci sa temps lu bari de. <laughs> waa Alioune Badara di wax nii rek laa <laughs> li Pa Ousmane wax rek ci laay nekkaat ndax euh, sécurité moom Wally Ballago Seck dañ ko war a yokk ñun demoon nañ euh, ca concert bi mu doon euh, def Thiès ci décembre bi avant muy ñëw mooy bi mu jógee Gambie dem Mbour. après jóge Mbour ñëw cees maak seen mii ñoo fa demoon mais dañoo jékki-jékki-jékki rek gis benn waay kenn ñun mënuñoo la wax ji jaar waa ji fi Wally Seck génnee si suuf fa waa ji jaar te sécurité bi ñu ñoom ñi ngi nekk ci côté bi yëpp mais ba tey Wally moom question sax la ko def li fa la waa ji jaar ah. naka te waa ji raam na fi Wally génnee ci suuf fa la waa ji jaar pour mën a kottanteeg Wally Ballago Seck am yoo xamante ne dañ ko war a xoolaa am na ñoo xamante ne amuñu intention yu baax am na ñoo xamante ne nag bëgg gis na bëgg dafa foor am na ñoo xam bëgg rek moo leen ciy dugal am ñoo xam war nañoo ñu gisee Wally foog ñu laal ko am ñoom buñ gisee Wally foog ñu kott ko pour ñu mën a am jàmm Wally Seck ñaata yoon la nekk ci eh, ci seenam di jékki-jékki yëkkati yére bi may fan sax dafa am yoo xamante ne xëy na c'est rafet na mais nañ ci bàyyiwaat xel na Sénégal ñu dañoo nekk réew moo xamante ni ñi gëm sëriñ dañoo bëri de yow rekk ci continent boo xamante ni ñu gëm sëriñ dafa bëri de xalfa xuufa dafa am am na ñoo xamante ne même bu dee sax yóbbu dara de gaañee wuñ la ko mais am na ñoo xam am na lu ñuy takku ak lu ñuy laal loo xamante ne pour yàqal la rek moo la tax a jóg moo tax ñu naan la artiste war te ñuy ñëpp kon war na nañoo veyewaat ci sécurité bu baax a baax Alioune ba dara falaay tënkee wax ji rek waaw ndax Pa Ousmane wax na lépp. pour te dire am na sax benn xarit artiste benn femme moo ñëw di ko may fleur mu jël fleur bi. Hmm. photo bi génn photographe bi doon bi moo doon photo femme mais ba mu joxee artist bi photo bi. Hmm. fleur rek na nga gis waa ji téye fleur bi nii. ana loxo non maa maanaam artist bi doon way moom nga gis mu téye fleur li ma la wax dëgg la de xam nga fan kaa la woon LGI mbaaw bii fa la waa doon tëggee. léegi te waa ji nee na ndaw si nga ko jox moom dafa gis ndaw si mi ngi way nekk si kaw scène bi di way bu dee mi ngi.